sur 199 tests réalisés, 6 sont revenus positifs. Il s'agit de 6 cas contacts suivis par nos services. Par ailleurs, 10 patients hospitalisés ont été déclarés guéris aujourd'hui. Ils sortiront de l'hospitalisation dans la journée. L'état de santé des patients hospitalisés est À ce jour, donc, 250 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 123 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 124 patients sous traitement dans nos hôpitaux. Au regard de la nouvelle tendance épidémiologique marquée par l'apparition de cas à transmission communautaire,